ko wërloo ba mu sonn te joxu ko ñetti dërëm yooyu naan ko isa haddasaka al kanzu isa haddasaka an nafsu annaka qadirun ala ma xawat aydi rijaali fa kazibi bu fekkee sa bakkan dane la mën ngaa defi njuuj njaaj ba li ne ci loxoy nit li nga jël ko xamal ne sa bakkan dalay nax waaye loolu mënta nekk sëñ Tuubaa nee na ma xam ne maa yor yëfi jàmbur naa maslaa nee na may maslaa ba soxna Faat Isa Jóob bot way juru borom daarul mooti fekk ñu ñu toog moo ñëw jox ma ñetti dërëmi ngurdu nga xam ne ñetti dërëmi ngurdu yooyu moom laa jox naar bi mu daal di may jox téere boobu sëñ Tuubaa nee na naar bi bëgg a dem ma ne ko des na de mu ne ko lu des sëñ Tuubaa bindaat aw aw bayit ne ko danga maa tooñoon te fayoo ko guma daan ne ko isa haddasatkal kanzu annaka qaadirun ala ma xawat aydi rijaal yi fa saddiqi yow tamit bu dee sa poos bii dana la lu ci poosi jàmbur yi mën nga koo dajale dëggal ko nee wax nga dëgg waaye dafa laaj ak muñ dafa laaj ak tey loolu lañ ci mën a déggee mooy ndekete sëriñ bi ñaari téere yi mu njëkk am ci jamono yépp ci coono la ko amee booba yi jumtukaay yi jàppandiw waaye day def coono bu rëy a rëy moom sëñ Tuubaa ngir am euh, téere boobu noonu sëriñ bi soññee bu baax a baax a baax ci xam-xam am na lettre boo xam ne daf ko bind wax ne jugee na ci man Ahmadou Bamba jëm ci bépp jullit jëpp bépp murit boo xam ne da ngaa wax ne ci man nga aju maa si sëriñ sëñ Tuubaa ne maa ngi lay digal nga dem jàng ji li nga xam ne mënta ñàkk ci lim ci li jullit di fas maa ngi lay digal nga dem jàng li mënta ñàkk ci li nga xam ne mooy sa faratay jëmm ni ki attey laat attey julli attey ko waaye ba mu ko waxee ba noppi dafa wax ne man sëñ Tuubaa mi leen digal ngeen jàngi loolu warlul naa leen dinaa leen taalifal taalif yoo xam ne di ngeen ca fekk yii ma leen jàngaloo wa inni takallaftu lakum wa lakunna bi tawaalifa yakunu fiha jamiu zalika man sëñ Tuubaa mi leen jàngaloo loolu warlul naa leen dinaa leen taalifal taalif yoo xam ne li ma leen jàngloo di ko fekk ca taalif yooya sëñ Tuubaa soññe bu baax ci jàng soññe bu baax ci xam-xam ñi nga xam ne dañuy tàyyelloo nit ñi ci xam-xam sëñ Tuubaa dànkaafu leen wax ne wa man nahaakumu ani taallumi fa innahu yaquudukum lin naqam képp koo xam ne da leen di tere sàkku xam-xam leen ne kooke ci merum yàlla la leen jëmee wa man nahaakumu ani taallumi fa nahyuhu ila dalal yantami képp ku leen di tere jàng ak sàkku xam-xam kooku da leen a bëgg a jëlee ci lënd ci leer yóbbu leen ci lëndam te mooy jëlee leen ci ignorance di bëgg leen a jëlee ci savoir yóbbu leen ci li ñu wax mooy mooy ignorance waxaat ne wa man nahakum an taallumi fa huwa xalifatu laini al mujrim fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowmal jazaai wal wajal daal di wax ne képp koo xam ne da leen a teram njàng xam leen ne kooku daf leen a bëgg a jëme ci toroxtaange te kooku bu ngeen doon wër xalifa général iblis jàpp leen kooka ndax mook iblis ñoo bokk benn jëf bu ñuy jëf ci kaw suuf sëñ Tuubaa bi mu sàkkoo xam-xam boobu ba mu ne ci moom mu daal di yëkkati yitteem nag daal ne man sëñ Tuubaa sama yitte jëpp léegi yëkkati naa ko fu ab jaam nekk fa yéene naa laa xamal ba nga xam himmati yartaqat li taalimil ulum li wajhi zil arshil muqaddimil alim sama yitte yëkkati naa ko maa ko jëme fan maa ngi ko jëme ci képp koo xam ne nee nga da ngaa bëgg a xam lu ma daal lay xamal téere yooyu mu wax ne warlu na dina ko taalif bañ ko waxee xam nañ ne sëñ Tuubaa def na ko Mawaahibul Quddus sëñ Tuubaa daa jël téere imam imam Umul Barahim bu ñu bu imam Sanusi dafa am ñaari téere bu ñu wax Umul Barahim ñu koy wax al aqidatu suxra ak bu ñu wax aqidatu ahli tawhid al muxrijatu min zulmatil jahli wa ribxati taqlid ñu koy wax al aqidatul kubra al aqidatu suxra boobu la sëñ Tuubaa jël ñu daan ko wax warxaat imam Sanusi taalif ko muy Mawaahibul Quddus ci jamono yi sëñ Mor Anta ba sëñ Mor Anta Sali teg waraqaatul imaam Sanusi di jàngalee bopp sañ Tuubaa te loolu xam nañ ne positif dëgg la ndax kenn ci ñun ñii ku ci jaar ci université yi nga mës a bind mbind moo xam ne sa professeur dafa doyloo li nga bind ba teg polycop yam daan jàngalee di jàngalee li nga bind yow yow étudiant bi loolu xam nañ ne benn université amu fa te sëñ Tuubaa def na ko ñaareelu téere bi mu layinu sudur sëñ Tuubaa ko taalif jasbatu sexaari sëñ Tuubaa ko taalif moo wax moo ngi toll ci juróom benn téeméeri bayit ak juróom fukk ak mu la yinu suduur yi moo ngi toll ci ñaar téeméeri bay téere boobu ma la wax sànq ne moom la jëndee ci naar bi tudd alxasan téere boobu moom la sëñ tubaa taalif ko taalifaat def ko mu la yinu ngir xamal la rek sëñ tubaa ni muy xamee mbir yi fi muy mujj ak ni muy defee pëstéef ci li koy jariñ tey naar boobu nga xam ne moo tudd alxasan nga xam ne moo jaayoon sëñ tubaa téere bi bi ko sëñ tubaa jaa jëndee ci moom téere bi ñetti dërëmi nguur la ko jaayee waaye sëñ tubaa bi mu wootee yoon yi ba xéewal yi bari dane naar bi at mu jot ak mu jot del ñëw ma lay jox téeméeri dërëmi ngur ngir téere ba ma jaayal at mu jot naar bi ñëw sëñ Tuubaa yëkkati téeméeri dërëmi ngur di jox at mu jot naar bi di ñëw at mu jot naar bi di ñëw ba bi sëñ Tuubaa di dem ci tukkib géej gi woo sëñ ma Samba Diop Sam woo naar bi na ko kii laa bëgg sama ginnaaw saa boo dajeeg moom wàññil téeméeri dërëmi ngur di jox ko donte bis bi ñeent ñeent fukki yoon nga dajeeg moom ci bis bi loolu xam na ne pëstéef la bi sëñ Tuubaa demee ci tukki gi naar bi daal di fat daal di wàccub liggéey sëñ ma Masamba Diop Saam ne nañ ma wol ab taawam ñu woo taawam naar bi sëñ Tuubaa ne ko sëñ ma Masamba Diop am ne ko sa addiyee bàyyi ji laa bëgg at mu jot nga di ko jël si muy téeméeri dërëm nguur di at mu jot doomi naar bi di ñëw sëñ Modou Lam Diop daga ne ne maa ngi doom maa ngi mujjee gisante ak benn sëtum naar bi mu ñëw kër di jël si addiyee ji nga xam ne sëñ Tuubaa bàyyiwut addiyee ji di ko jox naar bi ba sëñ Tuubaa jógee fi xaaju seex si faatu waaye sëñ Issa sax daa mujj moom jël relève bi di jox naar bi téeméeri dërëm nguur di nga xam ne moom la sëñ Tuubaa joxe woon te kooka mayu ko woon téere ba dafa koo jaayoon ci ñett dërëmi ngurdu waaye bëgg gu sëñ Tuubaa bëgg xam-xam moo tax muy war lool naar ba di ko fay di ko fay bay fay ay sëtam sëñ bi taalif ci téere yu baree baree bare muy jawharun nafis nafa ju xadaayil xaaj masaalikul jinaan faydul xaniyil muxni jaalibatul burur ak ba ay téere yu baree baree bare jamono yële ci gannaaw sëñ alaaji mbàkke xaadimul xadimi génnee na téere boo xam ne ñeen fukki xadis la def te sëñ Tuubaa ko bind te boobu daa bokkoon ci téere yi nga xam ne daa làqatu woon kon ndekete ba tey jii mën nañoo jàpp ne am na téere yu sëñ Tuubaa bind te gisaguñ ko ndax ba tey gis bu ay téere yu bees génn yoo xam ne sëñ bee ko bind waaye daa ne ci gaal yi ba tey fisagul waaye sëñ bi ni nga xam ne noonu la amee xam-xamu baatin noonu la amee it xam-xamu zahir li ñuy wax al ilmu laduni muy xam bi nga xam ne suñu borom moo la koy jox wa aataynaahu min ladunnaa ilma sëñ bi da koo am ni ko wàllu yëpp amee wax ne xustu uluman min muqaddamin alim yaxbitu nii fi nafaaha zawul ulum am naa xam-xam boo xam ne yàlla ma ko jox borom xam-xam yi yem ci téere képp buñ ma gisee dañuy ñee xam-xam booba loolu mën nañ cee joxe misaal Cheikh Abdoulaye